bég nañu lool mais rawatina sëñ Muntaxa fooyewul lenn yàlla waaw fooyewul lenn sëñ Tuuba fooyewul lenn yonent bi fooyewul lenn diine mu ngi ko teg fa mu ko waroon a teg rek teggu ci tànkam ba léegi waaw moom loo ko mën a xañ te xañoo ko diine mu d'accord waaye nag boo ko bëggee xañ diine loo ko bëgg a jox mu bañ waaw toogu maak moom mais loolu danaa ko seede sëñ euh, sëñ Muntaxa loo ko bëgg a jox ci àdduna te xañ ko diini soxlawul loo ko xañ ci àdduna te bàyyee diini diine jii fi bàyyi jaral na ko donc mooy kooku ku ne xam na li may wax waaw ah, ku ne xam na li may wax te itam boo bëggee noppali ci adduna da ngay defar sa xol ba ku ne la mu am nga yéene ko ko lay mayam nga yéene ko ko du tee li nga am boo ko xeebul mën ci dund ba dee ah, ku ne la nga am boo ko xeebul mën caa dund ba dee waaye denc sa cër bëgg a jël cëru keneen booleeg sa cër coow li yëpp looloo ko indi waaw ah, waaye ko xeebul la nga am man caa dund ba de kon nag ñëw nañ ci dëkk bu ñu sawar a ñëw bu ñu yàkkamti woon ñëw bu ñu nammoon namm suñu xarit suñu jigéen suñu sëriñ bu baax a baax muy soxna baali mi wax dëgg yàlla sànq bi sëñ Muntaxa di filmer ci yoon bi laa ko ne boo demee bu ko filmer ne ko soxna si xamoo ban façon la waaw ah, boo demee bu ko filmer te loolu taxumaa jóg moom moo ma ñaan ne daa bëgg a ànd ak man man gaw ma woon sax ne day ànd ak bi ma woowee xale bi ma nekkal ma ne ko mun taxaa ku mu àndal mu ne ma ànd naa keneen ma ne ko kon dafa namm ma ci yoon bi nag laa ko ne bu ko def ndax it ka ñuy fekkee tax man damay ndokkeel si damay ñëwaale seet si yaram wi ba pare itam ñaanal sëñ Muntaxa bég ci liggéey bi fi sëñ Tuubaa liggéey bàyyi ko fi ba macha allah ñëpp di taasu ko defee kontaan naa lool suñu soxna baali bég naa lool bëggoon naa mu ëpp lii bëggoon naa fay yendu fanaan fi am fi ay at gunge la sax ba amerig waaw gunge la foo jëm ndaa itam yëg gi rek doy na doom bi daaw dama dem def émission ci jumaa ji ci yoon ma am malaise am nga damay xëm léeg-léeg ma miir bu tàngee rek noonu la may def ma miir nag ci oto bi eh, ñu teg ma ci oto bi di ma upp